ay ca mbokk yi gis ngeen combat bi dox ci diggante Laurent Ndiago ak xale bi di plateau <laughs> ay waay bis bi ñu doon xaar ñaari xale yaa ngi nii dis-moi qu'est-ce que xale bi phénomène bi moo ko muy xale bi nga xamante ni mooy Laurent Ndiago waaye mu ngi xale bi nga xamante ni ndeysaan mooy l'espagnol bi Torobikhate Dinaro non Torobikhate non Dinaro ñoom ñaar ku ci nekk indi na li nga xamante ni mooy slogan muy plateau muy Laurent Ndiago ñoom ñaar doon combat boo xamante ni vraiment combat bi tax na ñu bari di ko xaar mu nekk combat boo xamante ni Warent DKR production ñoo ko organisé mbokk ñu ngi fii ci fi nga xamante ni mooy arène nationale combat bi nag bokkoon na ci combat bi nga xamante ni. ñëpp a ko doon xaar plateau ndaysaan mu ngi noonu ndaysaan moo jóge fi nga xamante ni mooy rëbës moo jóge fi nga xamante ni mooy plateau moom xale bi di plateau ndaysaan Laurent a ngi noonu ñoom ñaar dañoo bëgg a bokk fi ñuy taxaw ñaari xale lañ ndaysaan Laurent nee na fii laay taxaw plateau nee na fii laay taxaw arbitre bi nee na leen coup sifflet bi moo leen boole waaye coup de sifflet boobu moo leen di tàqale ndeysaan ñoom ñaar gis ngeen ñu ngi noonu ndeysaan Marley ngi noonu dugg si le grand champion ma soox tànk bi te gaañu wut <laughs> tey làmb lépp tegtal la ndeysaan ñu ngi noonu plateau ak ak plateau moo leen won ginnaaw moo ngem moo ngem bi Laurent moom ngeen jàkkaar lool moo plateau cokkaas na ndeysaan cokkaas na ñoom ñaar xale yi ku ci nekk bi mooy sa premier combat ci lamb ji ndeysaan sa premier combat arène bi mooy seen ouverture ñoom ñaar te ku ci nekk war naa mën a ubbee ndam waaye ku ci nekk mën naa ubbee defet te ñoom ñaar faw ku ci nekk ubbee ndam kenn ku ubbee defet kon actuellement dox ci diggante Laurent ak Plateau ñoom ñaar ñaari ndam dugg si nañ kat mooy génneeg ndam kat mooy génneeg defet ñoom ñaara ngi noonu Laurent taxawaay bi baax na pied droit la jiital ndeysaan Plateau taxawaay bi baax na tànk càmmoñ la jiital cokkaas na Laurent da nga bëgg a cokkaas moytul Plateau daa mën a bëre. Laurent ki ngay bëreel est xam nga ko plateau daa mën a bëre otul de otul de cokaas na dóor na ko ndeysaan Laurent li mu baaxul ndànk sóoraaleel xale bi ñoom ñaar combat bi du yomb ñaari xale lañ yoo xamante ni ku ci nekk mën naa woon boppam cokaas na ndeysaan tribune bi jóg nañ ndeysaan turbine bi jóg nañ ndeysaan turbine bi jóg nañ gis naa ne ko réel <laughs> cey lamb ndeysaan turbine bi jóg nañ ndeysaan ñoom ñaari xale yaa ngi noonu di laatoo ba tey dóor na daw na jëli ko dóoraat na kuy mu ngi dal kuy mu ngi dal Laurent mu ngi dóor plateau mais plateau da koo bëgg a gis nga plateau Laurent cokkaasaat na Laurent ma ngay cokkaas ma ngay di cokkaas Laurent plateau wul Laurent plateau ñu ngi bëre plateau combat bi Cameroun ah moom nga jàkkaarloo moo la féetee nii Laurent mooy dóor plateau daan na ko takk na ko wuli mi war ba daan na Laurent Ndiago daan na plateau Laurent Ndiago bi daan na plateau Laurent daan na plateau xoolal ma lii Adama Kaay Adama Kaay Kaay Adama Kaay xale ma. ñëwal ma li nga bëree ñëwal ma ci li nga bëree ñëwal. sant yàlla yàlla ànd ak man rek. mënu ma ko. ndeysaan nga bëre moom mooy di xeex. mooy indi xeex nga wuyu si ko ci xeex bi bëre ko ma suturaal yàlla ànd ak man de wax waa jàmm sama papa la mbës si man barki yàlla lay wax waa jàmm ga yow sambi ndeysaan